ce mercredi 22 juin 2022 dafa am lu fi xew fi ci Massalikul Jinaan ben partenariat bo xamné immobilier entre trois compagnie Prestige Immobilier ak wa Askadem association des commerçants et des délégués de marché na xamné Serigne Mbaye Ndiaye moko jité euh partenariat bi nak dafa nek programme pour xamné duñuy décider euh décider pour ñiw doole parce que xamné sommes Sénégal ñu bari seen loxo jotu seen ginnaw te ñu bari dañoo sonn tamit ci wàllum luwaas xam nañ dëkk bi lu mel ak lu mu méttee moo tax ñu lancé programme bu mel nii. programme bi nag soriwul Sindia parce que ñun waa pays depuis 2003 ñu ngi ci wàllum suuf di yëngu dans différents domaines d'activité stratégique tey nag lu ñu gën intéressé mooy li ñu tuddee promotion foncière moo tax euh, balaa ñuy dugg ci benn programme dañuy tàggat suuf si waxtaan ñu war a waxtaanal jëflante ñu war a jëflanteel. de telle sorte que bés bu ñu tënkee programme bu mel nii rek sénégalais bi dañ ci gis seen bopp même yéen journaliste yi nga xam ne dinañ soxla terrain suuf bu leer bu wóor bu mucc ayib mun nañ ñëw fii ci CPI. képp koo xam ne daal gis na sa bopp sonn nañu ci luwaas am na ay problème ay jafe-jafe ndax xalaat bu bari ñëwal ci pays bi loolu moo ñu tax a jóg parce que yàgg nañ tëddal ay programme tëdd na ay programme Kër Massar tëdd na ay programme Tivaouane Peulh waaye dañ gis ne programme yooyu niw doole yi mun ñu ci dugg moo tax tey ñu indi lii képp daal koo xam ne bëgg na suuf bu wóor suuf bu leer suuf bu mucc ayib ñëw si CPI bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla Sénégal euh, am jàmm jàmm yàgg fi tamit di gërëm tamit président Mbaye Ndiaye mii na xam ne président Mbaye Ndiaye moo yëlif Ascodem te nit boo yëlif benn askan wala njaboot dana war am gis-gis te gis-gis boobu moo ngi ci Mbaye Ndiaye mii nit tamit boo yéenee dana war am sell nit yéene boobu nag yéene bu sell la moo tax président may ñu lay gërëm ñu lay sant di ñaan yàlla di ñaan yàlla yàlla wéral say cër ndaxte yow sa dund dafa am njëriñ ndaxte gëstu njaboot bu mel nii te képp kuy commerçant xam na ne commerçant yombul. commerçant yi am na ñoo xam ne ay marchand ambulant lañu dañuy dox ba seen daal di dagg am na ñoo xam ne tamit dañu yore seen table am na ñoo xam ne tamit dañu yore seen cantine ak seen magasin ñoom mooy njaboot boo xam ne wax dëgg yàlla président def def àqulaay taalam yàgg nay nak ci walum prix waaw ci walum prix gëstu bom nak ne gëstu sa njabot ñu lay ci gërëm di la sant ñum nak en tant que promoteur immobilier dinañ def suñu aqulaay taala pour que sénégalais bo xamné new na doole bëgg na ci bokk ci ko programme bi wala yenen inshallah ñu dugg ci ma leen di gërëm di leen sant. Euh, waaw condition yi en fait condition yu mucc ayib la condition yu souple parce que euh, condition yi en fait sur 78 mois la c'est-à-dire en fait. Euh, premier mois y a 40 000 77 17 des yi 30 000 francs vraiment c'est pour que le maximum de sénégalais mun ci parce que nous avons dëkkuwaay est sensible. le montant global revient à 2 350 000 Si vous parlez aussi lu jar a xam mooy dañ lay jox parce que nous, avons même déjà un cabinet d'experts fonciers Nous avons un cabinet conseil plus luy wàllum c'est la régularisation dañ ko xam dañ ko maîtriser 225 euh, mètres carrés là...